ngeen toog seere li nga xam ni ñu ma seqal war a wax ñoom maa ngi koy wax ak ñoom ngeen may ma rek dégloo ba li ma war a wax lépp ma wax ko li may jëkke moo kilifa yi diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi ak njaboot bàyyi kër te dara yëkkatigu leen lu may doo fasjudoo lillaahi wa'budoo rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu dëkk loola rek a leen yëkkati indi leen fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni leen seenu koy dee moom awu bëggo seenu cantit lott naa ci waaye nag yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm te dimbali ma walbatiku nag nuyu sa sama bokki ba yi nga xam ne sunu yaakaari ëllëg weesuwut Sëriñ Tuubaa sunu gannaaw bakkan amuñu lenn lu nuy daariloo mën caa teg baaraam lu dul Sëriñ Tuubaa bala maa waxtaan ak yéen dafa am luy jëkk damaa bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ni bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ren nag wóor na leen ne yàlla fàttalikoo nanu yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la ngay fa la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa ma xaqahoo yawma hisaadihi wala tusrifoo nawet moom xam ngeen ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ne ren yàlla may nanu ko kon nag nan sàmmonte li yàlla santaane def ko góor góoru leen ci asaka yi def ko nam ko na ngeen ko war a defee na sell te li ci si ngeen bañ koo yàq ndax yàq képp yàlla tere na ko waaye li ma koy tere tere da cee dolli ne buggul ku koy def loo xam ne nag yàlla da koo tere ba noppi bañ ku bañ ku koy def mu bañ la loolu daal ku ne war na ko wattandiku wattandiku leenu yàq nawet bi mu ngeen ko jëriñoo ci ni ko yàlla santaane génne ak yàlla ji li ci des ngeen téye ko te bañ koo yàq dana barkeel ci seen loxo te amaana it yàlla bu deetee def da leen di gën a dimbali loolu laa jëkk bëggoon a jëkk a waxtaan ak yéen ginnaaw ma leen santee nag ci jóg ji ngeen jóg yéen ñëpp bàyyi seen yitte ñëw fii ngir bisub sëriñ Tuubaa bi kenn ku ci nekk la nga man nga def ko ci loolu mënuma lu may sant leen ci yéen ñëpp nag ngeen jot suñu vidéo nag foo ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a moo leen vidéo boo xam ne dugal mën a xam nga xam ne